agence techno habitat mi ngi nekk cité Mermoz ci wetu ancienne piste villa numéro agence techno habitat mooy ca offert. bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa alaa aalihi wa saxaabatihi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu euh, kuréel gi nga xam ne ñooy liggéey ci mutaabaa ak taqwiim di topp njàng ma ci daaray soxna jaara ji ci poroxaan ak it bu ñu àggee ci war a tari alquran ñu téyel leen natt leen ba mën a saxal seenuk mokkal ak seenuk ñàkk mokkal kuréel googu sëriñ Muntaxa moom sëriñ Mamor mi jiite ko ànd ko bokk yu takku kon ci tuuru kuréel gi ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaara di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ni moom nga toogal ci jotaay bii di nuyu sëriñ Moustahine ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci fondation bi di liggéeyal daara ci euh, sëriñ bi alhamdulilah rabbil alamin kuréel gi nga xam ne ñoo yor mutaba ak taqwim euh, liggéey nañu ci gone yi diirub ñaari fan yi démb ak tey ren ji ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko poroxaan kon ñu leen di seet toll nañ ci fanweer ak juróom-ñett Euh, muy lim boo xam ne kon yokk na ci at yi weesu ndax li seetlu mu at yi wees yëpp at mu nekk lim bi dana yokk alhamdulilah kon ren yokk na fanweer ak juróom yooyu téyel nañu leen fanweer ak téyel nañu leen euh, ñi leen téyel ay jàngalekatu alxuraan lañ doon yoo xam ni wattu alxuraan yoo xam ne ñu ngi leen di tànne ci dëkk bi tànn leen ci seen expérience ak it muy ñu ñu xam ci alxuraan niñ ko defee it mooy maam jaara bu nekk ñeenti jàngalekat ñoo koy téyal kenn ku nekk téyal ko fukki xisib ak juróom bu ca noppee jox ko moroomam nga xam ne su taree kaamil bi yëpp kon ñeenti jàngalekat yu am expérience ñooy saxal ak mokkalam wala ñàkk a mokkalam niñ koy defee it mooy niñ ko daan defee ay fiche lañ yor fiche yoo xam ne ñeenti fiche la fukki xisb ak juróom yu ne ak fiche biñ koy seete fiche bi li ci nekk mooy daañu natt gàkk yi xool yàquk maskam xool yàq arafam xool rungeem leen lu mu ci def rek ñu noteel ko ko ci fiche boobu suñu noppee nag ba mu tari alxuraan lépp fiche boobu commission bi jël ko xool nag ba xam kii ah day saxal ne mokkal na ci lim gis ci ay résultat ci moom wala mu saxal ne mokkalut gag am na ca yàq maska am ca yàq araf am ca runge am ci yàq araf ak yàq maska yooyu dañ koy boole buñ ko boolee jox ko valeur u gag kon loolu buñ ko defee ba àggal la ñuy saxal ndax kii mokkal na wala mokkalul loolu alhamdulilah diggante démb ak tey mboolem maam jaara bu dikkoon ci 38 yi ah, xayma nañ ko nattu nañ ko ci anam gu mel noonu. résultat yi nga xam ne moo ci génne nii la tëdde am na ci euh, lu toll ci fukk ak juróom-benn yoo xam ne ñoom amuñu benn gag ci alxuraan fukk ak juróom-benn. am na ci ñaar fukk yoo xam ne diggante benn gag ba ñeent gag lañ am waaye kenn agu ci juróom ñaar fukk yoo xam diggante benn gag ba ñeent waaye kenn àggu ci juróomi gag am na ci it juróom-benn yoo xam ne am na ci kenn koo xam ne juróom-benn gag la am. am ci koo xam ne juróom-ñeent gag la am kooku moo ci ëppale koo xam ne juróom-ñeent gag la am tey li ñu nekk li nekkoon ci règlement bi mooy ku gag ba àgg ci fukki gag ak ñeent kooku dañ koy delloo mu jàngi waaye gis nga ki ci ëpp gag juróom-ñeent gag la am euh, ñi ci des ñëpp it noonu la demee soo ko boole lépp di fanweer yi ak juróom-ñett kon commission bi bi mu xoolee mboolem résultat yi saxal na ne kenn ku nekk ci maam jaara yi wattu na alxuraan wattu gu rafet wattu goo xam ne dina boole ratax ak it maanaam njàng mu rafet moo xam ne dina boole ànd kon loolu mooy li nga xam ne moom la commission bi euh, gis ci liggéey bi nga xam ne moo fi jaar muy tegtale nag kon ah liggéey bu rafet boo xam ne waa daara ji ñu ngi koy def muy jàngalekat yi waaye it muy idaara ba fa nekk di direction bi ndax dañuy faral di wax ne liggéey bi moom amuti jat amuti luxus amuti ñaan moom kemte laayal effort boo def te organiser ko danga gis résultat résultat bu toll noonu kon résultat bii nga xam ne gis nañ ko moom day tegtale góor góorgóorlu goo xam ne waa daara ji ñu ngi koy def ci ñiy jàngale ak ñi nga xam ñoo leen di saytu kon commission mi ngi sant yàlla bu baax ah, di ci ci ci turu Serigne Mountakha Mamour mii di ñaan yàlla it Serigne bi Cheikh Mouhamed Mountakha Mbacké yàgg fi lool ndax xam nañ ne résultat boo fi am rek ci yittey boppam ak akuk ñaanam akuk jàppam ci la amee. te it alhamdulilah liggéey bi gis nañ ne teg na ko fu kawe ci ay yitteem kon loolu alhamdulilah feeñ na ci kon ñu ngi yemale foofu kaddu gi euh, rek di sant yàlla bu baax ñaan yàlla ñu fekkee waat ko atu yàgg ngeen yàgg fii nit yi ànd ak sëriñ bi feggoog moom di ko dimbale suñu borom defal leen ak wér banaal yëpp àgg ci ànd ko ngeen